الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéwal te musal ko mbokk yi doomu ndey ñu ngi fas yéene jël tey ñaari tomb tomb bi ci njëkk mooy qissatu ummu maabad iswaaru soxna soosu ñu naan ummu maabad kan mooy ummu maabad soxna si histoire ul islam munu ko fàtte ndax dafa bokk ci soxna yi nga xam ne seen tur bind nañ ko ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn munta jàngale siira bi yonent bi juddoo ba ni mu faatoo te ummu maabad bokkul ci histoire bi lan mooy mbiru ummu maabad yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba muy gàddaay génn këram jëm kër Abubakar ñu war seeni gëléem war a dugg àll bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñamu àndaloon dañoo romb ci benn tànt ci biir àll bi tànt bi ki fa nekkoon mooy jigéen ju ñuy wax ummu maabad waaye ci jamono yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di romb ndaw soosu ci àll bi ak tàntam moom dong cundung dafa fekkoon mu nekk at yooyu atum bekkoor atum mar atum xiif yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak gaa yi mu àndaloon daa di romb tàntu ndaw si waaye fekkuñu ca tànt ba ca seen xiif googu ak mar ba ci naaj wu tàng baak àll boobu ca mbooye baak désert bi falam yajidu indaha siwa shaatan ajfa ba ñu ñëwee fëgg tant ba màgget bu jigéen daat ci génn bu tudd ummu maabad ñu sàkku ci moom lekk ak naan fekkewuñ ko dara ludul as tëng xar bu jigéen bu ndaw moom lañ naan tëng xar moo xam ne dafa wow koŋ ween yaa nga jeex takk laysa biha laban benn toq soow xar mi amu ko waaye ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fastaazana ar rasul an yahlibaha ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonent bi daal di sàkku ci ndaw si ne ko ndax jox nga ma ndigal ma ratt xar mi ah ndaw si daal yéemu waaye jox yonent bi ndigal ginnaaw ba yonent bi tàggoo ndaw si yonent bi sàkku ci moom ndigal ne ko ndax mën naa ratt xar mi ndaw si ne ko waaw yonent bi tàmbali ci loxoom yooyu nga xam ne ay barke rek la xee la fees xeewal rek la fees yonent bi tàmbali ratt xar ma ci kàddu yàlla soo mi commencé toq këll gi commencé fees sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jox gaa yi mu àndaloon ñu naan mu naan jox ndaw si mu naan mu rattaat ba mu fees mu daal di jox ndaw si daal di koy won ginnaaw falamma aada zawjaha wa axbarathu lxabara ndaw si ba jëkkëram génnee dellu si jóge ci àll ba xiif ak mar di ko bëgg a rey ak coono boobu ndaw si yàkkamti na jëkkëram dellu si ba mu xamal ko xabaar bu mag bii tey xew ci biir këram gi ci tàntam bi ci tàntam bi nga xam ne tàntu xiif la tàntu mar ba mu ñëwee mu nettali ko histoire bi génne këllu soow mi joxu boroom kër gi lan la ko góor ki wax wallahi inni la araahu saahibu qurays alladi tatlubuhu wallahi duma toog lu dul waa ji danaa ko gis teg ko bët ndax mooy waayu waa quraysh ba moom la waa quraysh di wër kii mooy waayu waa quraysh ba mbokk yi ñaareelu tomb ci dersu tey mooy duxulu rasul sallallahu alayhi wa sallam al madina yonent bi départ na ca ummu maabad bàyyee leen ay kéemtaan bàyyee leen ay biir yu fees waaye bàyyee leen ngëm ndax li ñu gis kat ñoom convaincre na leen xam nañ ne kii yonent la yàllaa ko yónni ca jamono yooyu waa ansaar ña ngay xaar ca mbooya ma ca naaj bu tàng ba ca montagne yeeg garabu koko yeeg garabu tiir yi garabu tàndarma yi ña nga cay xaar Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suba gu nekk waa ansaar danañu xëy yéeg ci montagne yi ci garabu tàndarma yeeg tiir yeeg koko yi di séentu Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ngoon jot buñ ko gisul dëpp ñibbi bu fajaree ñu xëyaat def nañ defoon biig hatta yowmul isnayni saani asara rabi al awal ala ra'asi salasata asara sana min nubuwatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba benn bis ci bisu altine mbokk yi bisu altine bis la ci bisu yonent bi yonent bi ci la judd ci la faatu ci la egsi Médine ci gàddaay ga moo tax moom yonent bi mu daan woor altine bu nekk ñu ne ko lu tax ngay woor altine mu ne ci laa judd gis ngeen tey ci bisu altine fukki fan ak ñaar ci weer wuñ naan rabiul awwal ci bopp ñaar fukki at ak ñett wala fukki at ak ñett fukki at ak ñett ci bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ca Médine ca naaju tàng wa ñu dégg ab yahud ma nga yuuxu ca kaw garabu tàndarma yi Médine ya ba baatam sës naan waaye waa màkka baa nga nële kooku ñu naan yonent yàlla muhammad ma nga nële di ñëw waa ansaar daa di yuuxu jël seeni ngànnaay ngir daje ji ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi mu wàcc ci giir guñ naan bani amrin ibnu awf ci fukkeelu fukkeelu bis ak ñeent ba mu yenn fa fanaan fa daa di fay tabax premier jàkka ci jàkka lislaam yi muy masjidu quba buñ la laajee ana ban jàkk lañu njëkk a tabax ci jàkka lislaam yi booy tontu neel quba buñ la laajee ban jàkka la njëkk a jullee juma yonent bi ban ajjuma la njëkk a julli tontul ne masjidul quba fa la yonent bi njëkk a jullee ajjuma mu départ sallallahu alayhi wa sallam ca bani salim ibnu awf mu jëm ànd ak waa ansaar ñu jàpp ca buumu gëleemam ga ñu koy wammat yor seeni ngànnaay di wane seen kattan di wan waa Màkka ne seen territoire jeex na yonent bi alayhi salaatu salaam dugg na sunu territoire tey pare ngeen ci kii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen bàyyi leen buumu gëléem gi jóg leen ci kanamu yoonu gëléem gi xallu sabilaha fa innaha maamuura bàyyi leen gëléem gi dañ koy wammat gëléem gi départ ba mu yegsi ci barab bi nga xam ne tey moom la ñu samp jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gëléem gi daal di fay yës tuuti daal di jogaat daal di départ tuuti daal di delsiwaat ci parab bi mu yësoon daal di fay yësaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wàcc ci place boobu mbokk yi la waa banu najaar ay nijaayam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa lañ ko dalal ci kër saxaaba bu màgg bu lis bu turam des ci lislaam bu tudd abil ayub al ansari radiyallahu anhu wa ardaahu yonti yàlla muhammad alayhi salaatu salaam dal ci kër waajooju tudd abul ayub al ansari gaa yi daal di tàmbali nag foofu gëlëm ga yësoon ñu tàmbali tabax jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jënd terrain bi fi gëlëm gi yeesoon jotoon nañ fa suur ay nit ñu sulli leen mu jënd ko ci ñaari jirim yu nekkoon ci keppaaru asad ibnu zarara kooko yoroon jirim ya mu jënd terrain bi ci kilifteefu waajooju ñu daal di fay tabax jàkka yonent bi waaye yemuñ ci jàkka yonent bi rek dañ faa tabax ay néegu soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon teere ba dañ ko xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi ñu tabax ci jàkka yonent bi beneen xaaj bi ñu tabax ci néegu soxna yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di yonent bi yónni ñaari sahaaba zeyd ibnu haris ak aba rafia ne leen dem leen màkk sama njaboot sama waa kër ñama fa bàyyi woon ngeen dimbali ma ci ñoom indil ma leen ñu fekk si ma fii ci madinatul munawwar kon mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam egsi na madinatu munawar ci banu najaar ci awsoo xasraj fekk fa ay problème yu rëy rëy rëy rëy fekk fa noonoo fekk fa deret ji tuuru fekk fa wuute fekk fa bañante waaye yonent bi mu ne cëpp ca dëkk boobu tudd Médine li mu njëkk a def changé turu dëkk bi Yasrib la woon mu tuddee ko Médinatul Munawwar mu tabax jàkka ji bu mu paree lu mu def al muaxaat bayna al muhajirin wal ansar mu mbokkale diggante muhajirin ñi gàddaayoon jóge màkk wal ansaar ak ñi dëkk Médine mu mbokkale leen mu ne axar rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna al muhajirin wal ansaar fa kaanu tisiina rajulan allahu akbar juróom ñeen fukki góor lañu woon ala muwasaat ala an yatawaarasu baada al mawt duna zawi al arham hatta nazala qawluhu taala suratu al anfal wa ulul arhami baaduhum awla li baad fi kitabillah nee na yonent bi mbokkale leen diggante muhaajir ak ansaar juróom-ñeen fukki góor lañ woon dañ bokk lépp lu ñu am ba donnante sax dañuy donnante ci nga gis keroog kenn taxaw ci waa ansaar daa di xëcc kiñ ko mbokkale woon ci waa muhaajirin ne ko am naa ay tool xoolal bu la ci neex ma jox la am naa alal xoolal loo ci soxla ma jox la am naa ay soxna xoolal koo ci bëgg ma fase ko nga takk ko allahu akbar mbokk yi wolof yi danañ wax ne ku bëgg akara da ngay ñeme kaani ñii ba ñu bëggee aljanna dañoo ñeme lépp moo tax dana jafe tey ci ñun ñu xëccoog sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam buntu aljanna ndax ñii dañoo mbokkoo woon ngir yàlla mbokkoo wuñu woon ngir ay intérêt ay intérêt mbokkoo wuñu woon ngir xeet mbokkoo wuñu woon ngir waaye dañoo mbokkoo woon ngir yàlla di donnante sax alquran moo dindi loolu yàlla wàcc ab aaya ci suratul anfal ne wa ulul arhami baaduhum awla li baad fi kitaabillah ñi mbokk deret ñoo war a donnante waaye bu njëkk ba muhaajir ak ansaar dañ noon donnante waaye lan moo ko dindi mooy aayab alquran moo ñëw dindi loolu yonent bi alayhi salaatu salaam mbokkale leen ne képp ku nekk waa ansaar yëgal ne kenn ku bàyyi ko muhajirin sa mbokk la ñoom juróom ñeen fukki góor ñooñu déparé woon Makka ñëw Médine ba kenn ku nekk ci ñoom fanaanoo ci mbedd ku nekk nga fanaan ci kër ñu commencé leen daggal ci tool yi commencé leen daggal ci terrain yi ñu am ay bitig am ay kër ñu commencé leen di leen may ay soxna commencé di séddoog ñoom seeni alal ba waa muhaajiriin fàtte coono ak métit ak lañu bàyyi woon màkka kon mbokk yi ñaari tomb yi incha allah moom lañ doon def dars tey ñu jégglu ci tardement bi di leen ko jégglu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla def ci ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dañ ko gàttal ndax seen julli timis gi incha allah